si leen yegg si leen. da nga fay ñëw rek keroog bi di métti. yegg si leen. ndeysaan. xarit mbenn ñëwal nii. indi ma ko ñaari siis bu gaaw. waaye noo def. waaw sant yàlla alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. ak seet. waaw seet na fi. ngay daaxee ko. dañ di mag. ah na nga def. waaye maa la de. <laughs> def. man daal maa toog barki démb rek. mbenn woo ma. ne ah, maa ngi ci yoon bi kat di ñëw. ma am ci kontaan gu rëy nag. dëgg la dëgg la. ma nit ku baaxoo. dëgg la dëgg la ma nag ñun géwél xam nga am luñ baaxoo. dëgg bu wér. da nga di sama waay di ma teral lool. ah yow bàyyi lool. ah yow xam nga ko di bàyyi léegi soo ma gisee. ah yow kay fu mu toll nii la xale naan yaa nga ca kaw. ah yaa nga ca kaw a kaw. xam nga li doomu kii bi di wax naan seen lang mag ñi seen lang neex na. mais suñu lang ñu koy. waaw yaay seen lang ba mu neex ak ay yegg si la. ah kan ngeen ñëw. dégguma ko de maa ngi leen di déglu rek. tegal na tegal na. mu soo yor lu baax. yaa sooy da i damm yi. xale yi la xale yi la xale yi la xanaa li nga ma ko dammati. waaw si toogal bi. waaw waaw dawal gaaw lagal gaaw. waaw lagal sama waa jéegaat toog ma chaise bi ñëw. ah ba taxaw nii. ah déet nag déet toogal rek. ay ba tey lu ma def. waaw li nga def ba tax nga mënoo yëg suuf. man fa ñaasoo li yëg suuf. ah man man de. xanaa nga ma fàtteeti. ay sama waa bay jaga mais nag ah, mbaa féex bu baax alhamdulilah baa da mool da métti ma fi ñu ne dangay dangay nelaw ci biir dama gëndee ma jàpp naan woon woon woon xaw na maa yóbbu allah sant naa man mi day ah kii ah, benn fan yi ma tawatee ba yëkkati diggante téléphone amul solo alhamdulilah sant naa mooy fan yi ma tawatee taw bi métti boobu wax dëgg yàlla toogul ñaari fan te ñëwul kër ga seet si ma des ma toog kër ga sax xam nga rek waaw poche yi xaw ma bënn ma ñëw fi mu am na am na def ak man man nag dinaa ko wane ne ñun teraanga ñun suñu suñ ñun ngéwél la bokk ñun ngéwél rek xam teraanga waaw da ngeen xam valeur mhm. nit ki mhm. nit ku du yor dara sax mais sagal den koy sagal rek day tax suñu borom am sutura suñu bëree bëri bëri mhm. yéen ni ngeen fekkee lépp dem tey di soog a ñëw kon loo leen fekk si suñu poos yii mhm. dañ leen ko war a jébbal dëgg it ah loolu la mais kër gi sa kër la sa kër sama kër la ah ñaar ñii benn lañ comme maag yow nuñ mel dëgg la ah kon àdduna amul solo lépp ay teranga la. dëgg la lépp ay teranga la. waaw moo taxit euh, soo sa ba ne ma ah fekk ma dem seeti baay Oussou ma yóbbul ko te sëriñ kooram indi ko suukaru kooram ma bëgg ci lool nag xam nga par man ku ma dëkk ku ne ngàdd naa ah ma bàyyi mbenn nag xëy na kóllëre di dox sama diggante man ak yow kon ndekete moom may gis na ko ah man daal sama xol seet na guy ci moom xadi mi tamit di sa jabar di ku baax barki démb moo Ndiaye la ma ndogoo sama kër moo ma ko jox muy. mun na ko see bañ a fekk de xeebalu ma ko kontaan naa lool. Ah, dama leen di ak yàlla rek yàlla mu am seen fay yàlla na leen yàlla fay yàlla lafal leen cet ndaxte ànd bi dara yàquwu ci. dëgg la dara it ñaawu ci. dëgg woon tey di doog ñëw. Mhm. lépp luñ fi waxaat rek. Mhm. tey dañuy bari wax. Mhm. xam naa nag ni ngeen ma gan seen nii. Mhm. da ngeen a toog xaar ndogu. waaw ah bien ah, te te loolu leen def. tey fii ngeen ndogoo. Ah. ku am gan gu mag. da nga koy teral. Mhm. te yéen it samay gan ngeen dama leen teral. ndeysaan. ah. waaye kenn naa waaw limo. Ndiaye uh, Ndiaye ah, la. waaw limo noo def. ça va. ça va. Ndiaye Ndiaye. waaw. warloo waay. mami. ah lan la yow limo dama laa soxla ñu taxaw nii rek. man mi nga eh man nga soxla ñu taxaw nii yow yow man sama morom la ba nga may soxla fii di ma wóor. ah Ndiaye. ak lay jóg rek mënoo ko. mais hmm. eh, booy. waaw. duma la andi. indi leen nii indi leen nii seen damay dox yow nag fii nga toog sa mala gu ndaw bi oui ma lu ma lu ma la fay booy gis nga seen am sikkim gi nii mu ñëw géwél la bàyyi njaga laa ko fekk sunu gel lan fa laa fekk sama day ma toogal toogal ay yàlla xoolal paa du ci dal li ba pare mais xam nga xam nga ñaar la ma jox mooy deux mille francs la ma daaj mooy waaye dafa tuuti waay non nee na lii la yor lam ma am nga géwél du yor xaalis mi rek leneen ma bul ko wax kenn te la koy wax parce que suma gaayam nga nag ñu bokk booy bi bul fàtte loolu waaw léegi nag lu ci solution yow ku ko waxaat dara mën naa rek na ma doon loo de. ah déet sama dina kii xale ah, ko ba ma wuyu ko. waaw da ba ma wuyu ko. loolu ah, na ma lépp. astafurlah tapalapa. tapalapa bi baa ma boole la. suturaal ma sama jabar fi nekk rek dafa wujj la jàpp la mu suturaal lañ. la mu boole la ci jàppale. di ñaan xaalis rek. li eh, nga toll teel nii. maa dul laal téeméer. jabar ba fi dàkkal dàkkal du jeex moo war a génn non dangay doole ni daal aywa. yow andi fii ni yor naa arme rek. naa jëndal vélo. sama xarit la nekk ah. sama waaye de. waaw waaw waaw na. lu bëgg. waaw xoolal xoolal ko ba li bi yee yàq lay moom yàq lay dogo Baye Ndiaga man maa la war a teral ba ma teral la traité nga wér na xibaar jëla ñaari kilo yàpp jox noonu la ragalee koor kon de defaat bi maa ko xam dafa ragal koor damay wax yoo xamante ne fi mu ne nii naaj bi maanaam day mel ni nga wàcc sa kaw sa kaw bañ ma dina nii bu la jàppee yow caali di ànd rek ma de heure heure heure bi jotagul ah jël na faras gi ah jël na sëñ bi ah loolu de bëri ah sëñ bi de bëri ah déedéet bul yàq baa ngay def sëñ bi bëri gàtt bul yàq ah sëñ bi bëri bul yàq bul yàq sëñ bi moom bëri bul yàq d'accord man na commencé daal ji rek ah sëñ bi déedéet man daal ji teg noonu sëñ bi bëri wul yow déedéet ñëw eh, de. ça c'est pas mon griot. jax bu yàq. donc tu vas me marier après Ramadan. eh ki oh, la la wax ni ba bàyyi ki la waxal. griot boobu dégg naa ko. lii kan la laa wax. ñu day xaw ma yàq ndox. kii di ab ndox. dégg nga li mu wax. kii nii la mel ne dafa bëri histoire. yow kii yow ndox bi kañ la def sa kër yi. waaye ma waaye. daa njàggal. mën na ma rek. Aliou noonu la mel dafa bëri histoire noonu la mel. waaw bàyyi ma kooku noonu. ah bëri histoire. yaa ngi wax xam nga ko Aliou de. xam nga bëgguloo ko de. ah waaw ragaloo ko ndax ñi fi toog. defal ko xam nga ko xamul bëgguloo ak xam nga ko. bàyyi ma ko kenn laaj ah déet waaye bu leen bu leen dem. kii moo leen yàq seen lii non ndax kii kii moo fi ne kii. waa ji yaa ngi kat. adduna amul solo. non am na solo kay. lan mooy sa problème ba nga war ba doo def nee na doo leen fi ñëw crève ndox ba pare ak yenn bi mu nee a ngeen di demee noonu. lii nag ma kii merci ça va man bañ a. non non man dama ñu. waaye déet déet déet mburu yi ñu doon dox. merci ba bu la la indi say ba jox ko fekk dama ñu ah kii bi ñu leen non parce que kii day ko. ma kii. boo paree bu bëri ñëw. xam nga ramadaani. yow laa wax. yow. xaw ma kan moo ma xamul waaye yow moom xam nga kër jàmm la nga def. dimbali leen dimbali leen ay mag ngeen. ndox leen ndox leen ay mag ngeen. benn demewul noonu xoolal benn demewul noonu de. man kii xaw ma moo ko doon siiram taw kay maa ngi tegoon muus ndaw yi <laughs> ma waaw loolu la moo tax bu ma gisee lii moom ma jox ko. dëgg la dëgg la. lii lii lu mu. bar bu rafet bii gis naa sa ñaw bi rafet moo tax merci la jërë ngeen jëf di bàyyi aussi merci beaucoup jërë jooy ñu ngi yëkkal bari ñu dem baax na merci merci bàyyi aussi jërëjëf bàyyi aussi jërëjëf bu fi jooy jërëjëf bu fi jooy jërëjëf bàyyi amul soir comment ça donc man maa ngi waaw mi ngi dem ñu ngi dem man dem wax ne nga ne foofu war na laaj sa giri boobu bu la gën a lee ma nga dem ànd ak moom